94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem ko toppal 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne lañ koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew jaajëfal na leen chair nañ leen ah campagne baa ngi bëgg a neex nag de gis nañ benn candidat boo xam ne ni de daa mel ni daa duggaat ci otoom muy Thierno Alassane Sall lan moo waral loolu daa am fu mu jaar gaa yi naan Sonko Sonko Sonko voilà moo ne de mënoon nga koo dékku rek. wax say programme jàll bañ leen a faale parce que Thierno Alassane la boo ko xamee boo ko xamul yëpp ñenn ci sénégalais yi bàyyi nañ la xel bu baax a baax a baax ndax xam nañ ni borom xam-xam nga xam nga xam nañ ni kuy leeral nga kon yow Sénégal da laa soxla même boo nekkul président da ngaa war a liggéeyal senegal kon yow bul tombee ci yenn pièces yi voilà bul toll bul tombé daal ci eh, yenn pièces yi voilà parce que yow yaakaar naa ni système bii di ñëw ëllëg. maanaam ñii yor réew mi ëllëg bu fekkee ay nit lañ rek war nañ laa boole ci seen gouvernement parce que nekk nga koo xam ne ni yaakaar naa ne sa image gaa yi xam nañ ko bu ko yàq voilà yu mel nii nag euh, yaakaar naa ne euh, xam ngeen ko sax euh, bala ngeen dem ci barab war ngeen a foofu noonu xool foofu noonu ba xam nan ngeen fa war a jaare foofu nu mu bu ngeen fa jaaree lan mooy xew loolu yëpp dafay baax ci campagne mais daal jàpp naa daal image bii ma gis nii mu wax dëgg ak ni nga doxalee moom Euh, su ma sañoon man doo doxalee noonu ndax yow borom xam-xam nga te yaakaar naa ni euh, bu ñu demoon deuxième tour man gëm naa ni jomaay euh, dem deuxième tour gëm naa ni jomaay ngay yekkal man gëm naa loolu ndax say say say say say say image sa image quoi voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wax dëgg yàlla Thierno Alassane Sall fu ne Thierno Alassane Sall danañ xam ne kii ku diiñ la ku am ngor la ku kii waaye am na yenn détails yoo xam ne bu la ci kenn dégg loolu daf lay yàqal voilà parce que sénégalais yi do fu ñu de xam nañ bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ni ay borom xam-xam lan xam nañ ñi nga xam ne dañuy leeral nit ñi voilà fa nu jëm di leeral li nga xam ne moom la ñu bokk te yow da bokk ci ñooñu voilà beneen bi ci des mooy Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom yow koo yam nag yow it nag wax di yàlla it waaw jomaay Sonko waaw gëmoo jomaay Sonko wax nga ko wala waxoo ko waaye yow boo nee jomaay ni Sonko kay fooy bàyyi Anta Babacar Ngom Anta Babacar Ngom bu doon yow Anta rek gars yi duñ la xam. mais sa baay xëy na moo tax ñu xam la moo tax tamit nga am yenn xam nga grandeur bi tamit voilà kan fu ñu mën a waxee Anta Babacar Ngom rek mën nañ faa wax Diomaye ne Sonko nag non dafa mel ni yéen daal vraiment wax dëgg yàlla nag man daal seen image ak li ngeen di ak li ngeen di wane daal man daal wax dëgg yàlla man vraiment gisuma gisuma loolu daal waaw parce que da ngeen wax loo xam ne yéen bu ngeen xoolee seen biir da ngeen koy gis voilà foo mën a waxee Bassirou Diomaye Faye kay wax fa Anta Babacar Ngom kay mën nga faa wax Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko voilà kon loolu lañ ci bàyyi xel bu baax a baax voilà sonkoo nag ku rëy euh, xel la moom ku man a politique la fii lay ñëw na daal nekkatul moom ak euh, Macky Sall moom ak Amadou Ba la moo gis nga xeer yi nga xam da koo indaale sànni ko Amadou Ba yaa ngi gis après nag euh, léegi fi mu toll nii fi mu toll nii léegi Amadou Ba Sonko rek ngay dégg parce que sànni na leen xeer moom bi mu ñëwee wax na ni nekkatul maag Macky Sall léegi maag Amadou Ba la voilà tuddul sax yeneen candidat yi. te foofu tey jii gis nga bi mu tuddee ba léegi sànni ay xeer sànni ay xeer gis nga ko mu ngoog boobu ba léegi yaa ngi dégg tey Amadou Ba fii Amadou Ba loolu tamit da leen di dimbaliwaale ñoom Amadou Ba parce que moom comme laal nga niin ku ko laal niin moom Sonko loolay problème bi kon daal arrangé na leen foofu ci côté boobu.